bikum sage femme ya nga xamante ne fa ñoo sàgganee woon astu soxna ma waroon a wasin ba mu mujj faatu ñeent ca sage femme ya jàpp nañ leen tëj kaso yeneen ñaari sage femme ya fa ñoo hëmb ba diis loolu moo leen musal waaye ne ko noon fañ leen di tëj kaso les ko yéen kaay ñi ko xamal le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne hôpital bu Louga astu soxna ma fa faatu woon sage femme ya nekkoon ca hôpital ba ñeent ñaa ngi ca kaso ga le 27 avril nag ca la ñuy jàkkaarloo ak xamal geraw ñetti fan tey lañ koy tàmbali l'observateur moo ñu ko xamal waa ànd gësëm ñooy gësëm tey ci àllarba ji suba ci alxamis ji médecins yi yëngal ajjuma pharmaciens yi tëj seeni pharmacie lii yéen a kaay ne ànd gësëm nag seen geraw bi fa nar a yàgg weeru avril bii ba weeru mai bu jeex rek fa ñu yokkaat si du quotidien na ko ñoom kay ña ngay accéléré gën a teengal seen juróomeelu plan d'action moom lañ dóor ci table bi geraw général ñetti fan la weex ba la 22 avril la leen naqari nag mooy nguurug Sénégal lépp lu mu xaatim ak ñoom fa koo salfaañe fa ñoo war a xolaat seen nekkin ñoŋal ko leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na hôpital Le Dantec Macky Sall nee na na seen xel dal ndax faa koy tabaxaat yaw seetal si ñaar fukki weer ci lay tabax bi pare ngandum hôpital lay nekk nag fay xam juróom benn téeméeru lal ak 34 service ak 24 salle bu ñuy opéré ñu war cee dugal ay milliards alerte yéen kaay di ñu xamal ne essence roppalaan yi kérosène bi ñu wax ne fa manqué su suñu aéroport ba jëwru ji nekk wàllu pétrole bi su fi Galadima fay ba pare dalal na xel yi bi yéen nag moom lañ xamaloon jëwriñ ji nag nee na lu ji njaaga société libyenne bi mooy njaag ñii ngatu ci wàllu pétrole na ko wax nga dëgg nguurug Sénégal bu ko ci kenn wax dara ndax guerre ba ca Russie moo àndi lii lii yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fa ji yéen na leen hé Sénégal daf leen ndànk de fa ñoo tiire bal si suñ tànk yi ndax gaañu ñu ngi wër bato kérosène te amaguñ ko de wax su populi na ko noo na sa xel dal gladiment sapeur pompier a ngi diggéey rek li wérte wër daal jamono ji may wax ak yéen nappkat yi ñoom xamuñu essence bu ñu demee nappi jën leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy bëgg-bëgg ku jéggi ñoom Ousmane Sonko mooy ëppale député Macky Sall ak àndal ci wote yi di ñëw su ko defee assemblée loi fa Macky andi te du njëriñu askan ñu ne ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen ko fi wotee de enquête yéen kaay ne waaye suñ bëggee am loolu ñoom waa yeew yi faaw am ndam lu yaatu ci wote député yi ca ca assemblée info yéene kaay di ñu xamal pexe yi Macky Sall rëdd lépp ngir am ndam ci wote député yi a yaaw seetal fa yónnee ay mission biir Sénégal ngir ñi farok moom dëkkoo woon xuloo ñu juboo ñu ne déetewaay mbooloom responsable benn bokk yaakaar boo xam ne fañ laa mbuqi woon ci wote maire yi Macky dàqul leen de fa la na joxaat confiance ngir ñu jagaruwaat mën a xeexaat te fexe am ndam bi yoon ba tey ci pexe Macky Sall yi fexe na lépp lu mën ngir dugg ci xolu ndawu Sénégal yi ay xëyu ndaw ñeeg jokkoo ak Macky lépp fa bëgg ndaw ñi bëgg ko Sall mi ngi nangu ay maire yoo xam ne ci kujje gi lañ faloo andi ca wetam ba ci société civile bi gaa yi def transhumant turbine yéen kaay mel ni ko naan Macky Sall man daal faa foog na fa desee muus daal yow transhumant nangu ay maire ak ay responsable ñu bàyyi kujje gi ñëw fekk si la loolu amul njëriñ ndax ku ko ci defit askan wa fañ lay boole yaag Macky Sall yëpp sanctionné leen duñ leen woteel Idriss Seck doy na ci misaal ba tey yéen kaay bi ne mu laaj moom direct news mooy parti yi jàppale Macky Sall ci benn bokk yaakaar est-ce que toll nii amal nañ Macky Sall njëriñ ndax presque ñoom ñëpp sénégalais yi fañ leen a wan ginnaaw xamatuñ mbooloo sénégalais yi fañ leen a weddi a ah, yaaw seetal Moustapha Niass wote maire yi passé fañ kaa mbuqi mbuqi yi métti dëkkam kër ma jëbal ndax kam fa sampoon Abdoulaye Diatta tuut mu ray ko PS Aminata Mbengue Ndiaye xaw tuuti konoon Moustapha Diop ray ko ca Louga fa koo ba mu tëdd di ko watat mook Mamour Diallo yëpp donte Mamour Diallo jàppale na Aminata Mbengue Ndiaye mais terew mook Mamour Diallo yëpp la boole mëqal suuf réew mi Idriss Seck mbooleem ay candidat am sa diwaanu Thiès fañ leen a ngàdd rëkk mbuqi tut ñu dee Idriss sekk moom fañ koo gàccal ndax bureau de votam sax fañ ko faa mbuqi yéene bi ne waa léegi ñii kon lu leen di Macky sal di doyee même bu leen mënta dàq tamit na leen wóor ne bët bi mu leen doon xoolee fay soppeeku sur sa ay yéene kaay na ko Macky sax fa am lu ko doy ndax partem ba carte ga fa faa jaxasoo ayaw ah, seetal responsable APR yu Parcelles Assainies ña ngay rayante de ba tax Macky organiser ndogu lépp ngir saafara jafe-jafe ki nekkoon ci ay jafe-jafe te ki tey dëñ na du kenn ku may capitaine Touré sandarma bi nga xam ne fañ koo kajji dàq ca liggéeyam ndax nee na fa bañ a def lu du dëgg maanaam bañ a bokk ci complot Adji Sarr bi ci kaw Ousmane Sonko moo taxoon ñu ràjjee ko de mu dem ca IAM ne yooyu yaay fay jàngale nguurug Sénégal ne waa IAM dàq leen ko kii fa ñoo bëgg mu torox ñu dàq ko ginnaaw gi sénégalais yi sotal ko na ko doo fi toroxee waa mafia kacc-kacc dajaleel ko lu ëpp fanweeri million jox ko ko léegi nag bi a neex Barthélemy Dias moo ko def fa jël liggéey ca mairie bu Ndakaaru nekk conseiller am ci wàllu kaaraange te loolu a kaay ne waay man faay laajte aji saar du waxut fi woon ne Ousmane Sonko fa hëmbal waa léegi ana doom ja dara du ca dëgg leer na sénégalais yi moom aji nag ak ñi nga xamante ne ñoo def complot bi tuumal Ousmane Sonko lu du dëgg xam nga fi mu toll lan moo leen desee ñoom yàq deru Ousmane Sonko wax lu du dëgg ak saaga waaye sénégalais yi xam nañ ne yëf yi ay tappale la tàggat yaram Sadio Mané paas bi mu paas moo salaa mu dugal moom la adduna bi di waxtaane ci rafet ba pare mu mujj dugal record yéene kaay ne mu toll ni moom fa cee nekk stade yéene kaay ne Coupe d'Afrique 2023 tànneef gi Sénégal mook Bénin ñoo bokk poule réew mi tàggat yaram di ñu xamal na Cristiano Ronaldo doomam bu góor fa génn àdduna ma génn foofa dem ci libération fekk fa PCA bu COSEC yoo ngi koy topp de fa ñoo njortu ak këpp kees lu ëpp ñeenti milliards suñu xaalis la ko sooke nag mooy plainte Ibrahima Diop DG bu TDS jëmale ko ci kaw Mamadou Gueye ci wàllu abus de confiance ki fi woyoon confiance Aline Mbaye Nder doomam bu jigéen boo mooy tuut ko tëj kaso giiru dundam l'observateur moo ñu xamal ne donte baaje ndeysaan fay na xaalis baak yeneen yi ni ndaw si ak bandi yam xàndal fa ñoo agressé commerçant jël saagam ba waa ma ne Alioune Mbaye Nder nattu njaboot de la dal ndax njortu naa ne yar nga ko ay lii la yàlla dogal ndax yow yaa fi yaral sa doom su màggee mën laa jëriñ yow moom kii fa màgg teg la ay coona